yaa gën lu ñuy bëgg ka wut lu ñuy dox di mébét yaa mata wut yow ku la am falu di buur jóge nga yow faaw fi suuf doo dellu yow mukk fi suuf sabe nga doo sabe ka soof ñam nga wutul na bëgg a xuur sant nga yow te santulu sopp nga yitte soppulu topp nga yitte toppulu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa na sës rek ci yaa mën a saytu gaayi buur bégal nga buur ak gaayi buur ñëpp a ngi buur naka ma xam ni duma góor téer ba ni yaa di góor laa ñëw te naa jaajëfe góor saw de sa tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf dara yow yaa di lëf yaa di dara làq nu nun bu nu dóor teegal ak bu nu dóor sunu kogit bu ñu ko dóor te kogamit bu ñu ko dóor noo ngi fi yow di sabilir tey galak bu ñu nu daan sunu kogit bu ñu ko daan te kogamit bu ñu ko daan bu nu jusuul ak bu guur yonen ba def na la jiba na nga nu def fawu jiba te bu nu wàcc bu nu baa def nu ku jub ku bari muur na nga nu def jibay ngërëm yooyu feese feese kii ngërëm te feese feese kii ngërëm faw te def nu waayi buur jaaraama gaayu bamba yi bamba di sangub sang yi yéena di jiital donga yi am yéeni ndam tey ak ëllëg seenub tey moo fi gën gannaawam it yéena fi gën moo gën sëriñ si gën seeni kem bég leena bég lii fàggu sax mayewu ko ite juréy mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay du mayeb nawet bu jag ku ji sang yi sang ba ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ni ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a gënub murit sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daal ak sarax la donga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maaka mata yëg benn sëriñ musulaam ku koy joxub juróom mbiram lu dul sëriñ bi ak ñoñam ku wet lii mata alak la ma saam ku koy joxub juram juram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jomb ko ngir def na lu deful te daj na it dajul te dem na it demul ba ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku war fas dootoo ko jot ku war saxaarit doo ko jot fa mu ne yàllaa ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fam juram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na benn rungete gag yal na nu boole noonu yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy ndigalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg sëriñ bi yow mi lee tabe ba jiitu mboolem ku tabe te man ko daa yorub di bi talal nu tey sa loxo bi sëriñ bi yow mi lee tabe ba jiitu ku tabe te man ku daa yorub di bi talal nu tey sa loxo bi xamal ni koo joxul du am ngir képp koo fi gis mu am yaa tax mu am loolee mu am amal nu yaa am te tabe noo ngi di tabi àll bi di gonte kay xëy di rëbbi kenn duutu def lu dul rëbbi te say ngërëm la nuy rëbbi yii gaay ngi joxe alal yii gaay ngi futti ku dal yii gaay ngi di la bindal gaay yi di jàng téere bi yii gaay ngi di la duyal sa mband yi aka dawal yii gaay ngi di la wayal yii gaay ngi di la dabi koo gis mi ngi di def lu ne te yaa ko tax di def lu ne ngir yow danga defal lu ne yonen baak sa sang bi ku nekk yaa ko gënu nit ku nekk yaa ko gën jëfit sam kem amul te du amit giñ naa ni yaa doon nabi waxiina may yow sa waxiin defiina may yow sa defiin doxiina may yow sa doxiin ngirëm nga teg sa tànk bi yonen ba yow daala ko roy toolam bi yow daala ko bay moo tax ba yow dong ko doy lii tax mu jox la dëhru bi toolam bi daana defi mbooy te yaa ko tàggalee ki mbooy yaa dikk bay ko mbay mu nooy yow ak sa gopp sunna bi alarba rek ak i dibéer ak i minal la gaaya réer daa bayi del si dal di wéer gopp yi nag wër jàng bi nga dikk mbàkke jéggi leen ku nekk naa ay séenu leen ngay wéy di wéy ba weesu leen nga samp nag sa jànk bi di xëy di gont ak a bay di soo ta doo xama bay sa mbay rafet ta doo tay rusloo nga dongay dëkk bi di xëy di a bay di solte doo xama bay sa mbay rafet te doo tay rusloo nga dongay dëkk bi yonan ba fépp fu doxoon dox nga fa lépp lum waxoon wax nga ko lépp lum defoon def nga ko yaa di jàllu bi boole nu ak sunu njaboot bu kenn des na nga nu boot tey ak ëllëg bu nu futiit bu nu gis lu tax nuy rab rabi addina ji li dale ba jàpp àjjana jële diggante bi nang fi jële lu nuy ragal yow sang bi sunu wërsëgit nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunu yaram nang ko wéral te sol nu nag sa barke bi sotul nu xiiwal gu nu doy guy lewalaw tey rëy rëy ba nuy dundal baay ak ndey te menn xel du daj lebi te may nu toolit yu nangu ak i murit yu bàyyiku yu dul yàkkam te yewiku ko may murit yi mu xëbe may nuy murit yu dul xuloo kay sooba kay dox di daloo ak naa ko xam lu nuy njëloo sëriñ bi dollil natt bi baaxal nu may nuy gaayu baax neexal nu may nuy gaayu neex féexal nu may nuy gaayu féex jamal nu yaa di dann bi ku yor fital kudul yewit du tax mu jam fi aw saket koo xam ne jëm ci lu saket moo jaa lu muy yor jibi sunu fital ak sunu xeej yépp fabal neetu nu ngéej lu am la yow mi tàbbi géej ba génn dàq xare koy bari man man aka léej ba juxul ak pitalam wéej ku wedd lii na ma ko laaj man Babacar sa donga bi jox naa la man sama pital duutuma fab sama pital yow donga mat di jox pital ngir yaa fi paddu bi seexal nu may nuy gaayu seex bay jàppi junni naa nu foox nu di ko fab naa la ko foox te naa la nungul nu subi ngay nangu naa lii kay du su ab junni kay ëpp na su nu naa la ab junnee di su fi yow mi suuxal jant bi defal ndigal muy sunu kër kun tabbi mukk genn kër bi ku dul ndigal ngir googa kër du kër gu ay ngërëm tabbi tabbil nu it néegi ngërëm te may nu nag lépp ngërëm tëriki bun génn ngërëm di soobu jeeti àll bi danoo tilim te bëgg a set te booya boonu daldi set ndax yow setal nga képp nit setal nu yaa di póotu bi setal nu set gu nu jubu ku àndul ak jóg di fabu di dox di daw ak a nëbbu fegal nu nun sa nattu bi nun la nga nuy nattoo na di gëléem ak i fas ak i bëy ak i dërëm ak bàyyi mooy ak a sa bunt bi kon daj bi suñ xol yi lu dul yow mukk ak loo nu digal ak loo bëgg ak lu lay bégal lay dëgg yaa di soppe bi boolem lu nuy fexee ka wut yow dong nga tax nu di ko wut yaa jar di wut di wut di wut ba dee fu kenn dul robi yaa jar di wut di di wut ba dee fu kenn dul robi sunu diggante yàlla na leer te jaga jag ba nga nikaar te sax ba doy la gépp waar yàllante nuy sa bopp bi yokkal nu gëm gi nu la gëm yokkal nu xam gi nu la xam yokkal nu am gi nu la am yakkal nu sa yàq bi yakkal nu tey yàq bu rëy bu kenn xamul naka mu day boo xam ni bii dana nu doy te may nu lun dugge jabi tawal na waame i ngërëm wuy rëy rëy te du sewet di dotti noor ak nawet te jox nu nag sa loxo bi man lar bu ban bii te jagam naa sant yàlla nag jagam loxo bi kenn amul njëgam tegoona ak sa loxo bi man lar bu bon bii te jagam naa sant yàlla nag jagam loxo bi kenn amul njëgam tegoona ak sa loxo bi ma jóg wuti ndëndum cant ak galenum ngërëm ba tëggal sëriñ Tuubaa ki jox ma ab galan ma jóg wuti ndëndum cant ak galenum ngërëm ba tëggal sëriñ Tuubaa ki xëy jox ma ab galan wutal na ma domb ak tànk dolli na ma ab te may na ma ak ceexan njariñ sant ko man ka koy bañ du man mi waaje koy ayibal du man ka koy jëw a koy sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi moo gën mépp ngir ku ko wàcce bon ku wàcc ngërëm mi dal jaamuy xërëm xaran te yàlla akub yonante daa la fi nekk te ñoo di sëriñ bii moo di ñoomit ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say mbir dangay xaran te doo ab sëriñ doo ceddo ngir ceddo yàlla gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaane ay mbiram ay mbiram yewen te ab yéefare day nekk ci kéefaram bu wér di mooy mooy gu wér tey foo kay naana kay si benn li di sëriñ lee moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi la moo fu man sëriñ boo fu dégg ak boo fu seeru du lëf mu man mosal bi sëriñ boo mos bu dul bi la mos pasem yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sa wan bu bis benc baa wax ji ñu xam ni ji wér la wan xamal léegi wax ji yow te soobu ci am ngërëm léekat sa mbir jébbal ko am ndam akub galan sëriñ bee di saakoor ak sama julli faw man bu ñuy woor ak julli ka werd ma ko man sëriñ bee di saakoor ak sama julli fawu man bu ñuy woor kay jullee ka werd ma ko man te def naa ko muy saa xam-xam ak sama diina yët samay solo jëllul ban bayam naa ci moo fi gën samak bare man man dootu jëm ci lu dul mbiram lu dul jëm ci moomu mooy la teg mooy farul dagan dama lottu ci def lottu ci bàyyi moo waral ma jébbal ko samay mbir jox yenn ci doye dee ki fen dama lottu ci def lottu ci bàyyi moo waral ma jox ko samay mbir génn ci doyo deeki fen ku lot dafay boole mbiram yépp jox kaman mu far ko defal moo gën di yàq ka def lu bon danaa génn ndaw ak mag ci saa mbiri bopp yi te tàbbal ci waa new yàlla wii réyalub gosen bu jàppee ku tuutee tuuti bay tollu nepp gosen mu soppi ko ak tukkal gure yi yi jegen bu jàppee ku saw bay saf karam tollu new felit mu baaxal ko def ko ñay wu am barte gudd fan bu jàppee ku ñuy teggee ka yàqate ab deram mu def ko jaw njëg ñépp xëy duggi par dagan bu jàppee ku daaxaaraan akay sol sagar yu bon mu jébbal ko daggaaki baraaya mu boole gën bu jàppee ku daa mooy yàlla ak yonenam ba nag mu leeral digganteem ak boroomam ñu far ko tin kileema te jébbal mbir mu yor waane waa ngi nii te ngoy naa ci jébbal naa ko léppati faw man sëriñ bi bégal sa xol na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bég te yàlla bégal na la bégal nga sëriñ sépp ak murit yi ba ñépp bég nga may leen ndam seytaane bañ na la foñ na la bégal nga saxaaba e Mustafa teg ca Mustafa te jël nga ndamal mbooloo mi bëri yépp naw na la bégal nga malaaka yàlla ak yonenam ba nag ku réy nga fa péey bi yàlla xeej yi xam na la dëggal nga jullit tey bépp yéefar mu wéy nga wéy tëlëf mënu laa yàqal kañul ñépp kañ na la jullit ñile ak yéefar yi ñoo bokk yam ci yow amul ko ci xam aslëf ci yow mi le biir na la ku nëbbu ku feeñes lëf nga mboolem lu dee fi naw ci yow asaka yi sag baax a sab soppe may na la dangay sab ku teg téeméeri junni fi as mbarab te feeñal ca benn junni ñuy fas ni benn la dogon kon nga miin ak nelaw ak xaran sëriñ sépp booloo ñëw ni mbir yaa ngi lew na la ku not gaynde not segg ak mëfër dàq ñay mu daw du soo woo ki boy noppil te wey yàlla gis na la ku lay def moroomit xam na xel ni yaa ko man lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la sarax nus ngërëm su yokk faw te du ootu dañ te daal nuy bégal ngir mbàkke yàlla bégal na la sarax nus ngërëm su yokk faw du ootu dañ te daal nuy bégal ngir mbàkke yàlla bégal na la sëriñ bi sa digg ak xela xalam te raw njortu man seenub diggante dama ëlëm sëriñ bi sa digg ak yàlla raw nam xel ak xalam te raw njortu man seenub diggante dama ëlëm ñi xam yàlla ak mboolem ñi am yàlla yaa ci raw sëriñ sippa am ndam waaye yaa ëpp ñépp ndam sëriñ sa ba ñuy waalante càng ga yaa ko jam ba ñuy niita kay deqee ka daw jël nga ndam ba dem danga teggi tuur ndam ba kaw toora ku jël ku tëppul ci yow mi dootu am ndam du am xoram bu may baax a kay bon maa ngi nii topp man ci yow di seenu nga neel ak yërmandeeku tab ak ngërëm ku baaxul te ànd ak waaju di seenu lëf ku ànd ak ku leewuy junni seenu ca ab dërëm ku baaxul te ànd waa waaju baaxit te seenu lëf ku ànd ku leewuy junni seenu ca ab dërëm walaf nee na koo àndal lu rot ci yëfam nga for te la nu àndal yow ki rot la lu rotal nga fi nun agaram rotal fi lu dàqalem rotal nga fi nun aw ñam rotal fi lu dàqu ñam rotal nga ngëneel ak yërmande ku yiw njariñ ku tukkee fis ak ron nit ña daw raasi ronam ña mbooloo ya daa jox seeni mbir bu ñu del si wën asal jox la seeni mbir te fedd li seeni gëm xamal ne dangaa dox yàlla yow fu ko kenn doxul mu jox la lu tax xejjam yu rëy yépp faf wedam samay kii bu feeñul wën ñu gis ko ci yow bu wér ñu fas ni gileeg may yàlla jox joxti ko ab laram dañoo sédd mboolem sang yépp ñu dem nga ñëw ñu jébbal la ñépp seeni cer doy nga noo xalam dañu sedd mboolem sang yépp ñu dem nga nëw ñu yëppal la ñépp seeni cër doy nga noo xalam banaa bépp buntub sang ñëw fi sa bunt danaa am li wut mbaa ma dee fi sa bunt bi banaa bépp buntub sang ñëw fi sa bunt bi danaa am li may wut mbaa ma dee fi sa bunt te saa yoo nee dellul ma dellu te dal di ñëw mooy dem di ñëw ngir mbàkke yow daala fii fabe lafañ sax ka koy toggal akay togg lay faral te yow daala may toggal akay togg may dabe lu baaxee sa mbir yow lépp loo xam ni tëruwul du yow du sa mbir nekkoo ci àllum bañante di te nekkoo fa ñuy xiiroo ka def lu bon dangaa dem fa yàllay jaamu gën nga gott bi dangay def bu laabal ñëpp nun ñëpp yaanu tee tilim yaanu tee fees ak lu soof ak lor ak sobe na ngay dund ak ay wér fewu yal na la yàlla may li ngay wut ci bépp larte yàggal sa dund bi defar nga ñi baaxul ñëpp kenn xamatul ku bon ku jóg nee bi ndax buur buura am moo di xejj bi dangaa fekk mboolem nit ñi ak mbir yi bokk lëj nga lijjanti lëj lëj yëpp yaa jiitu yaa xobe dangaa fekk mboolem nit ñi ak mbir yi bokk lëj nga lijjanti laj laj yëpp yaa jiitu yaa xobe tabaaraka rabbul xarsi fiina wa fiikumoo saxal nu ci mbekku bil nu faw sa bi